dal leen ak jàmm seen entreprise troisième menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise troisième loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie Métallique Mansour mën nga ñoo 404 83 94 wala 677 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. assalamu mbokk yi noonu leen di nuyu di leen ziar amati mbégte contentement tey nak équipe bu info dafa waccion sur le terrain di laaj nit ñi seen xalaat nan ñu gisee combat si digënté Eumeu ak kii di Lac de Guiers 2 xaaral fii si garage bi doxantu xool kan laay njëkk jox sama micro. ah combat ko nen xam naa ne daal moom ci sama xalaat man ak sama gis-gis mooy Eumeu mooy daan quoi. combat Eumeu Sène la nag quoi combat moom. combat bi moom man ni ma ko gisee quoi. attaquant ak défenseur. ci sama côté Eumeu Eumeu attaquant te avantage bi mi ngi nekk ci Eumeu Sène mu ñëw rek appliqué li mu indi vite fait mun na am dara mais bu diiree tamit avantage la de guerre la quoi ci moom. combat bi de moom doy na waar xanaa Eumeu Sène ñu jéem a vigilant rek ci jour boobu noonu mais doy na waar de moom. Eumeu Sène ay daan kan la de moom du mbër rasukat la rasukat bu bon la. waaw mënut a daan Eumeu Sène Eumeu Sène yaayoo ndam li. Euh, d'après man li ma gis ci seen i entraînement ak yooyu noonu. Euh, man Lac de Guiers laa jox favori quoi Lac de moom laa jox favori. Eumeu Sène Lac de Guiers moom lu ma ciy wax moom bëriwul. gëm naa ne moom Eumeu Sène a nekk ci en moom bu Lac de dawul moom combat bi gëm naa ne moom du diiree lu yàgg ndax Eumeu Sène moom day bëre ndax Eumeu Sène moom yàlla xam na ni moom bëre rek lay def moom. waaw Eumeu Eumeu moom mi ngi liggéey moom combat moom saa yu ko jëlee moom day liggéey Lac de Guiers tamit liggéeykat la ndaanaan la yaay dégg ñeme na entraînement gëm na boppam mais combat boobu noonu dafa am différence bu ci nekk. ndax boo xoolee la dëgg Eumeu Sène bërekat la la dëggeer day xaar kon ñoom ñaar lenn moo mën a nekk Eumeu Sène ñëw bëreek moom yaa ngi dégg bu defee erreur bu ndaw bu defee erreur bu ndaw la dëggeer daan na ko waaw ñoom ñaar ñëpp a nekk ci forme ndax ñoom ñaar ñëpp a entraîné ndax euh, bu fi feebar bu dugg see mun naa ne ñoom làmb amul ñoom ñëpp a dem entraîné ji ñoom ñëpp a dem liggéey waaye tamit Eumeu Sène dafa jógee si défaite jëloon roi yàggatoo ak moom moo loo jël ko ci moom léegi moom pour mu retu feewaat ñëwaat ci làmb ji nekkaat fu mu nekkoon foo mu daan Lac de Guiers Lac moom tamit benn defet bu taqaloon ci kiwam rek la amoon boobu la bëgg effacé kon laa mujj moom mun naa war a war a war naa war a mun a neex. Eumeu Sène Lac de Guiers la parce que kenn ku ci perdre combat bi dina xaw a fatal ci yow déjà Eumeu Sène dafa am foo xam dafa jógee donc pour Eumeu Sène combat bi combat rachat la impérativement foo mu gagné xaar bala Gaye quant à Lac de il faut impérativement que mu gagné Eumeu que bëri nañ trois combats benn combat bi déjà. Nous ko déclaré match nul amaa nañ deuxième confrontation Nous aussi ko arbitre donc de a intérêt à gagner ce combat. cher internet de Tchari Info TV nous nous terrain bi tay ak sénégalais pour nous donner avis ak de 2 ñu xol fi ak 4 inchallah rabbi la di ay Info TV l'information en temps réel.